الحمد لله رب العالمين أحمده تعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وحبيبه وهو القائل من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه فصل اللهم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأسنى خديمه أما بعد فالإخوة المؤمنون في نهاية هذا الأسبوع المنصرم بدأ حجاج بيت الله الحرام يعودون إلى البلاد baada adaa'ihim dalika arrukn alazim min arkaan alislaam fa nasalu allaha taala bifadlihi wa karamih an yataqabala minhum wa yaktuba lahum xajjan mabruran wa danban magfura wa inna lilcaaidi min alxajji ayuha alixwatu almuminuun xaqan fi talaatati umuur يستحق أن يفرح هو وأهله وأحبابه بعودته سالما غانما ذلك لأن الحج إلى جانب كونه عبادة fa huwa safarun tawilun zamanan wa makaana wa yatadammanu mashaaqa wa maxaatir تسبب في كثير من الأحيان استشهاد كثير من النفوس ويستحق أن يهنأ على أن اختاره الله تعالى لهذا الفضل الذي يختص به قلة قليلة من المسلمين في جميع العصور وهو أداء فريضة الحج ويستحق أخيرا وليس آخرا an yudaa lahu bilqabul wa bima yatarattabu alayhi min gufrani dunubi wa duxuli aljanna fa an sayidina abi hurayrata radiallahu anh anna rasula allahi sallallahu alayhi wa sallama qaal man xajja lillahi falam yarfut walam yafsuq rajaa ka yowmi waladathu ummuh wa an sayidina jabir ibni abdillahi radiallahu anh annahu qaal qaala sallallahu alayhi wa sallam alxajju almabruru laysa lahu jazaun illa aljanna والعائد من الحج له من جانبه أن يأتي بهدايا من الديار المقدسة يقدمها لذويه ومعارفه وأفضل هدية يقدمها هو ماء زمزم الذي أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه لما شرب له ñoo ngi sant sunu boroom tabaraka wa taala sant gu yàlloog jëmmam ja ak màggaayam di seere ne amul benn buur bu jaamu ku dul moom di seere ne sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawama di jaamam di tànneefam di soppeem moom mi nga xam ne moo waxoon ne képp ku aji néegub yàlla bi te defu fa lu defuwut waxu ko fa bu fay jóge day set wecc ci bàkkaar ni bis ba nga xamee ne ci la woon adduna ñuy ñaan sunu borom mu dolli xéwal ak mucc ci moom ak i saxaabaam ak jabootam ak ci liggéeykatam bu mag bii bokki jullit yi ci njeexentalu ay bis gi ñu génn la sun ujaa ji tàmbali di dellu ci réew mi gannaaw boo xamee ne joxe ponk bu mag boobu nga xam ne ci ponk lislaam yu yi gën a fés la bokk ñuy ñaan sunu borom tabaraka wa taala ci mbaaxam ak tabam mu nangul leen te defal leen aj gu ñu nangu te jéggal leen seeni bakkaar ak seeni rëcc rëcc bokk yi kiy jóge ci aj nag am na ñetti àq yoo xam ne ay àqama sunu borom may ko ko ba ca jiitu mooy am na àq ak sañ-sañu am mbégte moom ak i njabootam ak i bokkam ak i xameem ak i soppeem ci dellu si ga ko sunu borom delloo si gannaaw boo xamee ne joxe na farata am solo jooju tam ànd ak mucc ndax kat niñ ko xamee ñun ñëpp dëgg la jaamu yàlla la waaye tukki la boo xam ne it tukki bu sori la te dana jël tuuti waxtu ci ay fan làmboo yitam ay jafe-jafe yu baree bare ak coona ak sax yu xaw a wóora di yooyu ay risque am na ci ba loolu danay sabab lu bari léeg-léeg ay bakkan di ci des kon koo xam ne suñ boroom taw feexal na ko ba mu defe ko ci jàmmu ba dëpp ñibbisi waat cëm réewam ci jàmm kooka yayoo na mu bég ca loola yayoo na itam ay xameem ak bokkam ñu bég ca loola ñaareel ba am na aq ak yelleef ci ñu ndokkeel ko ci tànn gi ko suñ boroom tànn boole ko ci ñay aji néegam bu tedd boobee te ñu xam ne loolu ngënee la rëy loo xam ne li mu doon doon ngënee lu rëy sunu boroom jamono ju nekk ba mu farataalee aj ba ni ñu koy waxee jamono ju nekk ñu néew ci jullit ñi ñoo koy def bu leen gam-gamlee gam ak mbooloom jullit mi ñëpp kon loola itam yelloo na ñu ndokkeel ko ci taw fexeel gi ko ci yàlla taw fexeel ak tànn gam ko ci tànn ñetteel bi yelloo na ñu ñaanal ko sunu borom tabaaraka wa taala mim doon jëfe ji digalam mu nangul ko lam doon def ñaanal ko it la ca topp lépp ci jégal koy bàkkaaram ak dugal ko àjjana mu defal ko ko jëlee nañ Seydina Abu Hurayrata radiallahu anhu mu wax ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam daa waxoon ne képp ku aj te yàlla rek tax te def fa lu defuwut waxu ko fa buy dellu day mel ne bis ba nga xam ne ca la gane woon adduna ñu jëlee ci Seydina Jaabir bin Abdullah radiallahu anhu mu wax ne yonent bi a salaatu wasalaam ne woon na aj gu nangu amul gépp genn pay gudul ajjana kon yayoona moom ñu ñaanal ko suñu borom mu defal ko lool yi waaye itam kiy jóge ci ajit soppeef na ci moom buy jóge ci aj ga mu ëndaaleel ñam fa ba woon ay sëri ca jële ko ca barab yu tedd yooye mu demoon jox ko ay njabootam ak i xameem ak i soppeem waaye nag bokk yi mat naa xam ne mboolem sëri ca bu nit di joxe ba ca ëpp doole gën ca mooy joxe maa u zam-zam muy ndoxam zam-zam ndax mbooleem yeneen xeet yi ñuy joxe yépp ci ay sëriñ ca dëgg la baax na naam waaye lañ mën a amee ca ndoxum zam-zam ma mënee su ko caa amee donte ne nag ñu bari ci ñun dem nañ ba xaw nañ ko woyofal te moo ne moom la yonent bi alayhi salatu wasalaam mi nga xam ne lu mu wax lu wér la ci la waxoon ne ndoxum zam-zam ku koy naan lam ca fas suñu borom dana ko defal bokk yi yooyu ñu wax yépp nag yu jaadu la yu lislaam yii yu maye la yii yum digle la waaye ñu baree bari ci ñun nag bu ñuy xool ci sunu dundin dafa mel ne dellusi ci aj moom ñibbisi jóge ci aj dañ koy lëkkaleeg ay jëfin yoo xam ne yenn yi jaaduwut yenn yi dana yegg sax ci doon loo xam ne du doon lu lislaam nangu bokk na ca yooya ñu bari ci ñun li ñuy tuddee nganale muy lu lu lu yéeme loo xam ne mat xoolaat mat naa itam bàyyiwaatum xel xalaataat ci ndax nganale lañ ko tudde te dafa mel ne fiñ koy tudde moom niñ ko tudde doonu ko ndax gan gan amu fi ndax ki jóge ci këram dem aji dellu siwaat kooku du gan ndax ci këram la jóge woon ci la dellu siwaat kooku du gan gan moom fa ñëw du fa doon ku fa dëkk la ca des it mooy xanaa du ñu war a mën a tudde gan bu kooku ñibbisee ña koy fekk si ñooñu it xanaa duñ leen war a mën a tudde gan wala buñ leen dee tudde gan xanaa du war a yell boog moom mi demoon na ko coonaam ak lam ca daj lépp ñàkki alalam boole ci ak i coonaam mu wëlbatikuwaat ko waat dikkaat ñooñu ñëw mu leen di ganale xanaa loolu itam xel du ko war a mën a rafetlu lool waaye li ci doy waar sax mooy yemuñ foofu dañ cee far yegg ci ëppal ci buñ ko yemale woon ci mu woyef rek mu mën a tane waaye ëppal nañ cee ëppal ba ab rawante am ci concurrence bu metti boo xam ne ku ne xam na ne dëppoowut ak li lislaam nangu dëppoowut ak li lislaam bëgg concurrence bu am ci diggante ñi nga xam ne ñoo doon aji ci seen jëmmu ku nekk ak nganaleem na mu koy réyaleeg na mu koy duufalee ba mujj weesu ña aji woon di jàll sax ba ci ñi ci yàlla dogal ñu yor lu ëpp benn soxna soxna ya sax far ku jega ñu koy dugalaat ci biir nganale yooyu nga xam ne mooy am di ca yàq ay alal yu baree baree baree bari di ca sànq waxtu bu bari di ca sànq itam énergie bu bari boo xam ne bokk yi lépp lu ñu aajo wala ci suñ diinee lu ñu ajo wala ci sunu dund niki noonu it sërite yooyu ñuy wax nga xam ne lu lislaam bëgg la ni ñu ko waxee léegi te wax nañ ne ba ci ëpp solo gën ca mooy ndoxum sam zam sërite yooyu it yegg nañ ci yemaleetuñ ko fa mu waaye jéggi nañ ci dayoo ndax dem nañ ba mujj jàppe ko farata ju munta ñàkk ba ku jóge màkka bu ñëwee mbooloo mu bari la ñuy ci ñoom mooy lu leen di jox ak lu mu leen di defal ñii di laaj ay mbubb ñii di laaj ay mbaxana ñii di laaj ay kaala ñii di laaj ay kurus ñenn ñi di yegg sax ci di wax ne ba muy dem joxoon naa ko nangam ba mu ñëwee nangam rek la jox yamatuñ ca loola jigéen ñi mujj duggaat ca dem ba mujj far soppi ko ab yeb bi nañ koy defee ca xew ya ca des loolu itam mbokk yi ku ne xam na ne ci lislaam du lu lislaam nangu ku ne xam na ne it xel wur te mën a xalaat mukk nit di ca am tuyaaba waaye bàkkaar dong la cay war a mën a jële ndax munta dugg ci bunt bu dul bunt bu yàq te sunu borom waxoon nañu ne moom yàlla bëggul ñu yàq waxoon na itam ne ñii am alal di ko pasar pasare di ko def ci lu jaaduwut ak lu dul farata lu munta lu amul njariñ nee na ñooñu ay bokki seytaane lañ kon bokk yi lii lépp ci ay jëf yoo xam ne ñu ngi koy def di ko lëkkaleeg sunuy ñibbisi ci aj muy ay mbir yu doy waar yoo xam ne yan nañ ci ñi nga xam ne ñoo jóge ci aj coono yu metti métti ci seen alal ak ci seenu yaram gannaaw boo xamaa ne jànkonte nañoo lañ jànkonteel ca aj ga te ku ne xam na ne jamono jii ñu toll aji lu bare bare lay coûter nit ay millions yu bari la ci nit di def ngir doog ko mën a defi war caa jóge nag ñëwati di defati yi ñu doon wax boolewaat ca coono ba mu sonnoon foofa bu dikkee ñu war koo féexal mu noppalu mu dikkati ñu bëgg koo dana leeti lu matub ay bis wala lu ko ëpp goo xam ne waxtu ne nit ñaa ngi ci kanamam muy jànkonte waat ak yeneen i coona loolu bokk na ci yi nga xam ne gis nañ ay lor yu bari yoo xam ne dana koy jur gannaaw bi ci ñi nga xam ne aji woon nañ te nag xeeti jëf yi yépp ay jëf la yu mat a wattadiku yoo xam ne buñ moytuwul rek aliyasu billah mën naa yóbbe nit ki sax far ci tuyaaba ak yool ba nga xam ne moom la doon séntu ca ajam ga far sunu boroom xañ ko ko te loolu dara jaru ko ñuy ñaan sunu borom mu nangul ñi nga xam ne ñoo aju woon ñëpp ak fu ñu mën a ne defal leen aj gu ñu nangu fay leen ci lam ca digge lépp jéggal leen seen bakkaar bàkkaar nangul leen seen i jëf te teg leen sirata mustaqim te gindi leen teg leen ci yoon wi nga xam ne mooy yoon wi gën di ko ñaan moom sunu borom tabaraka wa taala ci mbaaxam ak tabam mu nangul ñu suñuy jëf ñun ñëpp te may ñu yiw adduna may ñu yiw mu musal ñu ci sawara sàmmal ñu sunu ngëm tawféexal jëf ju baax te musal ñu ci lépp luy jàdd aw yoon alhamdulilahi waxda wa salaamun ala man la nabiya baada wa baad ayuha alixwatu almuminuun إن كل ما ذكرنا لائق ومشروع لكن كثيرين منا يربطون العودة من الحج بممارسات أخرى غير لائقة ومن هذه الممارسات ما يسمى بالقراء وهو أمر غريب لأنه في الحقيقة لا يوجد في هذا المقام ضيف يحتاج إلى قراء فليس العائد إلى أهله ضيفا فيقرونه وليس من يقدم إليهم ضيوفا عليه فيقريهم ويترتب على هذا القرى الوهمي تنافس غير شريف بين العائدين من الحج من جهة وبين الضرائر اللائي يعود أزواجهن من الحج من جهة أخرى ومن هذه الممارسات أيضا الإفراط المتزايد في الهدايا حتى كادت تعتبر ضرورية وهذه الممارسات تسبب للعائد من الحج إرهاقا بدنيا وماليا إضافة إلى ما تحمله بسبب الحج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 waltuf bina wa qawwina wa kun lana wa hab lana xusna alxitaami rabbana wa salliyan ala annabi wa sallimi waqdi bihi xaajata kulli muslimin yaxfiru llahu lana wa lakum الله أكبر الله